ñibbi ak i loxo nen li ko waral rek mooy grève liggéeykat collectivité territoriale yi moom nag dafa ñëwoon ci mairie Wakhinane Nimzatt benn extrait pour jarbaatam vraiment neexul nga déplacé paas ak embouteillage ba yëpp nga ñëw war a am sa soxla boo bëgg a mënoo ko régler neexul quoi ci xool. nag lépp lañu paralysé. usager bi nag di ñaax état bi mu trouver ay solution kon vraiment je pense que autorité yi war nañu wax ak ñi nga xam ñoo grève pour ñu trouver solution waaye ba tey état indul benn réponse ci besoin grévistes yi naam le minis suñu ministre de tutelle Mamadou Talla recevoir nañu jox ñu ay promesses yu ferme ne alors premier ministre dañu recevoir pour ñu ñu régler problème bi mu féete boor avec le ministre des Finances évidemment mais jusqu'à présent jusqu'à présent. ñoom nag nee nañu duñu teggi seen tànk su fekkente ni amuñu benn réponse ñun nag ñu jàpp ne ñii dañuy yàpp considération amul ñu nag ñu ne dinañu ko wëyal xeex bi xeex bi dinañ ko wëyal. à part recensement bi nga xam ne def nañ ko génn rapport provisoire waaw nañ ñu fay li nga xam ne moom la am muy augmentation généralisée des de nañ ñu fay ak suñu cinq usagers yi nag ñu ngi ñaan liggéeykat collectivité territoriales yi ñu teggi tuuti seen tànk maanaam di def service minimum ci fàttali bile grève def na at